jërëjëf monsieur le ministre kon mbokk yi euh, lii mooy li ñu ne woon dañ koy faran-fàcce ñu bëggoon nag euh, mbooleem sénégalais yi xam ni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bés bu ne ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bés bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo buggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte lañu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte lañu am ci li nga xam ne moom lañ tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii lañu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngoog bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal walla dundal bës bi nga xam ne lorange bi gën mag ci bi ñu xam ci loraange boo xam ne wala ci yi gën a mag yu am ci biir géej ci la bokk mooy keroog bi batalo Joola di suux tey mu tombeek moom ñu bari sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu ma jàpp ni nag organiser ci bës bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii mooy autorité yu yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir ma fiñ ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teyef ba mu jur musiba tey jii ñu ngi wax mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral lan la ñu def ci at yi weesu yëpp ci milliards yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci lu dul li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos li ci ëpp ay ko damm seen poos ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi la ko waral est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de la ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu Sénégal ba jël seen alal di ko di ko dugal ci réew mi donte dañ ñuy labal nag waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ni mën naa fay waaye loolu benn pàcc bi rek la beneen pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg milliards yi dugg mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire neleen jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porté peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii moo tax sen Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk lii mooy suñu défi ñun moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii fukki fan incha allah ndax dégg naa gars yi amuñu programme te bi amul ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na waaye lépp dañ koy teg ci taw fii ak fukki fan gën saa gudd suma jumul danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xam ne moom la ñu présenté woon ci programme mu président Bassirou Diomaye Faye ñu andil leen naka lañ koy farañ fàccee pàcc par pàcc ak naka lañ koy doxalee <coughs> mais mënuñu woon dem ci loola te defuñu lii ñuy def nii muy lu am solo moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndey mbill gi doo ko woo ma laaj leen numéro woo ko ne ko dañ la soxla mu fekkuñu ñu azalaay ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñu njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi ci biir waxtaan bi lañu ne way det bi demewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demeewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko mënee bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen yéen a jàllaat boo moytul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëree bëri ba nga xam ne jafe naa dajale loolu nag lu garaaw a garaaw la moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek a war a wax fi mu toll nii ñi jaar fii ci ministre des finances di Amadou Ba lay Abdoulaye Daouda Diallo di Moustapha Ba ak ki leen doon sant muy président Macky Sall ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo immaa ñu nangu ni nii la demee wax nag li tax ñu def ko immaa ñu ne demewut nii nañu génnee les preuves ndax écriture yaa ngi fi kon loolu lu am solo la dañuy wax askan wi ni lii andi lii ñaare mooy yàkkamte ku ñu fal rek yaa ngi ci horizon électoral ah d'ici quatre ans d'ici cinq ans dañu war dem élection